asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki am media group bokki taalibe yi bokki jullit yi noo ngi del siwaat ak ci sunu jataayu jigéen ñi mooy sunu émission saadu nisa il muslimaati li nasihati al muminina di ñaan suñu borom defal nu ak dégg waaye defal nu di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom dolli ko fi yàggal lool ba li mu yéene liggéeyal la sàmm ak njaboot ak la sàmm àggale ko fu kaw njortam ñoo ngi dikkaat gën ci sunu jataay bii di zaadu nisaa il muslimaat li nasihaati muminina wal muminaat santaat suñu borom bu baax a baax bi mu waaye ñu dikkaat ci ëttu M Media Group fas yéene àndaat ak yéen ci sunu jataay boobu bu mel ne jataay bi passé noo ngi woon ci ndénkaan boobu nga xam ne moo nekk ci euh, xiiru zaman nga xam ne axiru zaman mooy mujjug jamono melokaan yi nga xam ne bu nu àggee ci mujjug jamono day gëna a fés jataay yi passé ñoo ngi woon ci la tushriku billahi ya ixwaani li annahu yahdi ila niiraani moyta ndeku bokkaale suñ borom subhanahu wa taala ci say wax ak say jëf ak sa pas-pas waaye bañ rey benn bakkan ci lu xaqi sharia ndax suñ borom subhanahu wa taala daf koo tere waaye tëkk koo xam ne def na ko waaye moytandiku njaaloo moytandiku bew waaye moytandiku jëw moytandiku njëstal moytandiku jëf ju ñaaw ak junu sib ci nga wax ko wala nga jëf ko waaye moytandiku rambaaj moytandiku wax lu dëgg moytandiku rëy moytandiku moytandiku njëstal moytandiku wor moytandiku itam werante waaye moytandiku gis ngëneel ci keneen naka noonu bokk na ci ànd ak koo xam ne bokk na ci ànd ak koo xam ne eh, ab saay-saay la ci lu dul loru waaye bokk na ci ci tuub jëm ci suñu borom subhanahu wa ci boo defee bàkkaar dañ ne def bàkkaar mënta ñàkk waaye boo defee bàkkaar nga tuub ko ci lu gaaw dellu suñu borom subhanahu wa taala waaye bokk na ci tam ci ndénkaati bi mooy di noppi boo meree ndax mer boo meree rek man nga boo meree te teewu saw làmmiñ man nga wax loo xam ne boo giifee danga ko rëccu boo giifee kon moo tax ma leen su ngeen meratee na ngeen di noppi waaye itam ngeen sax ci ay jikko yu rafet jikko yu makaarimal axlaax waaye ngeen farlu lool ci moytandiku ak naafiq ndax naafiq ñetti màndarga la yoo xam ne yonent bi na ne ko ci xadis ba ku ci am benn am nga benn ci naafiq ku yor yëpp nag am nga naafiq bu matale kon noo ngi noo ngi commencé kunu anil kalaami saakitiina kunu ilal xayraati saariina bokk na ci ndénkaan bi mooy na na ngeen di na ngeen di noppi na di noppi na di bañ a baril ay wax ndax wax ju bari mën na xëcc nit ki jëme ko ci wax ay neen wala wax lu dëgg wala mu jëme ko ci rambaaj wala mu jëme ko ci jëw ak lu ko nuru kon loolu noppi daf koy gën ah, law kaana kalaamun fiddatan la kaana zukudu zahaban man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw liyasmut waaye kuunu ilal xayraati saariina na ngeen gaaw jëm ji sàkku aw yiw lépp loo xam ne mooy waral ngeen am aw yiw ci ngeen di ko jëf wala ngeen di ko wax na ngeen gaaw jëm ca ni alxuraan waxe saariu ila maxfirati min rabbikum na ngeen gaaw te jëm ci njéggal ak suñu borom subhanahu wa taala naka noonu fastabihul xayraat julli bi toujours dafa dafa war di farlu di jëm ci mboolem lépp loo xam ne moo koy may aw yiw mu farlu ci jëm ca waaye lépp loo xam ne moo koy xañ aw yiw mu farlu ci bàyyi ndax aw yiw lu rëy lu am solo la ci ëllëg yowmal xiyaam bu ñuy peese jëf ji di mel ni ki di tudd yàlla ak di jàng alquran ak zikar ak leneen ak leneen lu ko nuru comme ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xadis kalimataani xafifataani fi lisaan saqilaani fi lmisaan xabibataani ila rahman am na ñaari baat yoo xam ne yu oyof la lool ci aw lamañ way ko waaye diis lool ci ëllëg yamal xiyam bu nuy peese jibi jaam ñi waaye suñ borom bu sopp lool mooy subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim kon jàmm bi bu toogee defu dara sax war nay a di wax ñaari baat yooyu ndax yiw wi ci nekk ëllëg yowmal xiyam kon loolu moo tax mu ne kuunu ilal xayraati saariina waaye kuunu lada salaati naahidiina li awwalil awxaati ajiliina fu ngeen man nekk ba waxtu julli jot ca sens rek na ngeen buur jëm ci julli ji ca waxtu wa te bañ koy yeexe ndax waalam bi anna afdala taaati salaatuna fi awwalil awqaati Sëriñ Tuubaa nee na topp yàlla gi gën ci topp yàlla ji mooy nga julli ca njëlbéenu ku waxtu salaatuna fi aw awqaati kon kuunu lada salaati naahidiina li aw awqaati aajiliina fu ngeen mën nekk la daal ba waxtu julli jot na ngeen tegal lépp te dem jooxe waxtu suñu borom subhaanahu wa taala su ngeen paree delluwaat ci li ngeen nekkoon te bu leen yeexe waxtu julli la wal taxfasu rasa wa ma xawaau wal batna mithluhu wa ma walahu waaye na ngeen moytandiku seen bopp ak la nga xam ne moo aju ci bopp ak eh, la nga xam ne moo ca aju waaye ak biir ak la nga xam ne moo ko méng mu ne li ma ci jublu ci bopp ak la ci aju mooy al aynayni ñaari bët mi ngi ci bopp kon na ngeen moytandiku xol xaram wal uznayni mi ngi ci boppu ñaari nopp na ngeen moytandiku di ci déglu lu xaram wal farja wal lisaana war jëlayni bu dee biir ak li ko suuf mooy pay na ngeen sàmm seen pay yi na ngeen sàmm seen làmmeñ yi waaye na ngeen sàmm seen tànk yi na ngeen moytandiku di dox ci barab yoo xam ne barab bi suñu boroom subhanahu wa yu ngeen dut amee ngërëm wax na feneen isil muridu la yuridu abada xayra rahman xaysu xasata murid dëgg-dëgg moy ki nga xam ne fu mu sole aw dàllam di dem fu muy amee ngërëmal la waaye saay bu sole di solew dàllam jëm foo xam ne yaakaaru fa ngërëmal suñ borom subhanahu wa kon kooka ak muritam des na waaye sallu ala rasuli zil xamaami wa sallimu aydan madal ayyaami na ngeen di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bare bari yonent bi nga xam ne mooy zil xamaam mooy borom niir ya nga xam ne àggoon na ci diggante ak suñu boroom wala suñu borom tegal na ko foo xam ne daana toll ay jamono bu doxee ci naaj sax bu doxe bu dox ci naaj bi jant bi du ko tiim suñu borom day doxale digganteem ak jant bi aw niir muy dox ci ker waaye niir du ko tiim kooku mooy zil xamaam waaye was wasallimu aydan madal madal ayaami da ngeen di julli di sëlmal ci moom diirub jamono yi ndax julli ci yonent bi sallallahu alayhi dafa nekk lu am solo lool nga li nga xam ne moo nekk ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sët koo lim bari na ba mënee sët koo lim mënee sët koo takk rawat na ci bisi ajjuma ak guddi ajjuma ndax yonent bi sallallahu alayhi na ngeen di waxoon na ne na ngeen di bari lu ngeen di julli ci man rawat na laylatul xarra wal azhar biñ ko laajee laylatul xarra wal azhar dafa ne mooy guddig ajjuma ak bëccëgu aljuma guddig ajjuma mooy alxames alxames su xasee waxasee julli timis nga ci guddig ajjuma waaye bëccëgu ajjuma mooy bu xëyee li feek timis di bari di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa lu am am solo la rawat na ci sunu bokki soxna yi ndax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom lan wax ne dees na fay jàmm ci bu koy def ci bu laabee ak bu laabut bu teewloo ak bu teewlut lépp rek bu koy def ñu koy fay moom julli ci Yonent bi sallallahu alayhi bari ay ngëneel lool loolu moo tax mu ne sallu ala rasuli zil ghamami wa sallimu aydan madal ayyaami wa yduumu ala al wal azkaari fi kulli laylatin wa fi nnahaari sax ci da sax ci werd ak sikar ci gépp guddi ak bëccëg werd moom yaatu na lool lépp loo xam ne yaa ngi koy def te danga ko mu rek lu baax nga saxal ko saay bu waxtu jotatee nga def ko loolu werd la mu xam alquran la jooy jàng wala xasida yooy jàng wala salaatu ala nabi wala istixfaar wala wala eh, wala ay ay yeneen yu nuru loolu lépp sax day dugg ci jàng xasida nga xam ne nit ki su fekkee mënta jàng sax man na yor kursam di tudd yàlla di jéggulu def istifaar def ay salaatu ala nabi waaye nag amal ko waxtu woo xam ne saay bu waxtoo jotee rek lépp lu mu nekk rek mu bàyyi ko saxal ko donte danga koy def te mu néew lool te nga saxal ko loolu moo gën nga koy def mu bari lool te saxlu ko waaye koo xam daal werd moom kenn ku ci nekk war na ci fexe di ci am ab cër ndax Sëriñ Tuubaa na man lam yudim say an minal awraadi mu dayyan waxti ala tamaadi mamaluhu yowma yujaasi naasi siwa nadaama wal xasaara su fekkee jumul ci baytu wax na ne képp koo xam ne saxalu dara ci werd waaye nga sànq sëg ci ay nen nee na ëllëg yomal xiyam bu ñuy saxal bu fay nit ñi nga xam ne danoo dandaan saxal wérd nee na nga ricc lool kon kenn ku ci nekk rek wax ngay mën a fexe di saxal aw wérd wérd moom du gàtt wérd moom du euh, du du mën na mën naa bañ gudd mën naa bañ a bari donte lumu mu néew néew nga def ko te saxal ko tudd ko wérd loolu lu am am solo la kon daal duumu alal awraadi wal askari na di werde ak di tudd seen borom subhanahu wa taala fi kulli laylatin wa fi nahaari moo xam guddi la wala bëccëg la kon insha allahu taala foofu la ñuy taxaw ci sunu jataayu yóbbul soxna yi zaadu nisa il muslimaati li nasihati al muminina wal muminaati di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal nu ak dégg ak topp defal na lu càbb na lëndëm lëndëm lëndëm suñ moom boole ci boole na ci ñiy topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di moytandiku topp bidaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu amma bu xabsin alfaruq sayiduna fa fi masayaahu laa yartaabu tayyaaru وعوى المتم ضوي الإسلام يوم عدا miima bi kaana lil islaami izhaaru wallaahu farraqa bil faaruqi sayyidina al haqqa min baatilin abdatu fujjaaru